إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهر به وكفر لك الحمد يا رب ولك الشكر ولك المنة ولك الجامع كله وصلي وسلم على خير خلق محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل تيمين الطاهرين وعلى صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد مكن ñoo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakaatu gannaaw bu ñu دولي yàlla doolu sant yàlla bu baax waaye di santat yàlla mi ñu may kàttan ñu fekkee benn dellusi waat di defaraane fajar دو الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما وابدا الحمد لله كثيرا على كل حال waaye di julli si yonent bi alayhi wa ak waa këram ak saxaaba mi ak képp ko yaa ngi topp sunna bi ila yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel xéewali Allah mu sen safara amin bok ñu ñëw fi ci muhammad sallallahu Alaihi wasallam di kat mu googu bokk na ci way hikma bi tay borom xam mu ne ala qawl la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yent bi sallallahu alaihi wasallam wax ci aya bi ne nit ki jafé am nga dis ko yalla ñaan-ñaan bi insyaallah yàlla na la ko nangul muy ñaan bi nga xam ne moom la yonte yàlla yunus ñaanoon bam nekkee si ñaari lëndëm bam nekkee si ñaari lëndëm lëndëmi géej ak lëndëmi biir jën mu nekk si ñaari lëndëm yoo xam ne kenn mënu ko faa sowe kenn mënu ko faa génnee ku dul yàlla subhanahu wa taala mu nekkoon jafe-jafe bu métti jaaxle bu metti si yonte la yusuf al yunus alayhi salaam wasalaam e, bam ñaane ñaan bi yàlla subhanahu wa taala daldi ko muccal jën ba ko wonoon indi ko ba si taati pere bi daldi ko génne yonte la yusuf noonu la muccee yunus foofu muy lan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin muy baat yoo xam ne ñetti baat la ñetti baat ñu ne awaluhu tawxiid baat bu njëkk bi mooy tawxiid tawxiid nag waxtu bu nekk dañ ko dee fàttali suñ bopp di leen ko fàttali tawxiid mooy kennal yàlla wetal yàlla subhanahu wa taala mooy ne doomi aadama lii moo ne ne jafe-jafe boo am bul yaakaar kenn ku dul yàlla joxal sa boppa yàlla delloo sa boppa yàlla xam ne kenn mënu laa génn si jafe-jafe yooyu ku dul yàlla subhanahu wa waaye tamit su fekkee ne la am la kenn mënu la koo xañ ku dul yàlla subhanahu wa taala bon loo tax awaluhu baat bi mooy laa ilaha illa anta laa ilaha maanaam ndax nga ne amul benn buur ku dul yàlla subhanahu wa taala moom donc loo mu ne baat bu njëkk bi tawhid la waaw am benn kenn ku war jaamu si kaw suuf ku dul yàlla subhanahu wa taala loo tax nga ne subhanak nga dal saabal waaw saabal koy saabal yàlla subhanahu wa mooy nga màggal yàlla subhanahu wa waaw amul kenn ku màgga ku dul yàlla subhanahu wa taala loolu tamit nga joxaat yàlla maqaama boobu nga xam ne benn doomi aadama amu ko te benn doomi aadama du ko am mooy saabal yàlla subhanallah baat yu oyof si waaye yu diis balaan suñ koy wee suñ koy peese سبحان الله وبحمده سبحana allahi al azim waaw ñaareeli baat bi loolu la tekki ñetteel bi wa axiruhu istixfaar inni kuntu min azalimin waaw nga ne yàlla man de bokkoon naa si ay juumkat yi bokkoon naa si ay tooñkat yi bon yàlla maa ngi jégalu inni kuntu min azalimin nga ne yàlla jégal ma waaw juum naa yalla jégal ma waaw loolu li wone mooy ne bi nga xamee desa nekk sa diggante sa borom mom rek mo la ko mëna a nga délu war si mom tuub bon ñetti baat yi ku ko rek ma sha allah motal nga sa diggante sa borom ci li nga xamé né moy tawhid moy kenal yalla li nga xamé moy sabal li nga xamé né moy istighfar moy moo tax mu nekk aaya bu xam ne yonent bi alayhi julit bu am jafe-jafe di ko ñaan yàlla yàlla bu, insyaallah. ñaan boobu incha si kàttanam ak mbaaxaayam lii yëpp waaye nit def amal iman, amal kumyala, yàlla muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin bon yàlla ñu yàlla subhana taala sàmm ñu nangu ñu su ñaan yi waaye bépp jafe-jafe bu waaye di am yàlla mi saafara jafe-jafe yi yàlla na yàlla safara jafe-jafe yi ak li nga xam ne mooy tolof tolof yi yàlla defal ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin